kon tey fàttali gi ak soññe bi mi ngi aju ci mbir moo xam ne néewaane ci ñun ku ci mucc te yàlla du ko baale te amul kenn koo xam ne di nga ci mucc ci kamtilaayal say pexe walla ki la wala ki jur walla ci sa daraja wala ci say jaamu yàlla sëriñ Tuubaa nee na ëllëg yowmal xiyaam nit koo xam ne woor rek la dëkke woon wala bari na lu mu daan woor bari lu mu daan julli bari lu mu daan jokk ak mbokk bari lu mu daan def ci mbir yu baax yi ñëpp am ci moom ak ñeewantu akuk yaakaar ñëw ba teew ànd ak jëf yu baaxam malaayka yi di ko xool di ci yéemu nit ñi di ko xool di ci yéemu jinne yi di xool di ci yéemu ñu jékki-jékki rek ñu tàmbalee séddale lim jaloon moomu jigi moom muy jooy mbir mi jaaxal leen ndax xamul ni nu mu lu mu doon sunu borom ne leen kii kat lim daan def ci lu baax lépp da da ko boole woon ak du tooñ di wax jaambur yi lu mu leen warta wax di leen baatal ci loo xam ne ni dara du ci dëgg ngir yàq seen àddina loolu moo tudd tooñ suñu borom nee na wala taxsabanna allaha gaafilan amma yamalu zalimun innama yuakhiruhum li yawmin tashxas fihi al absar bul njortu mukk ne yàlla daa bàyyi tooñkat yi ñuy def la len neex ca nam len neexe te mënu ca dara wala taxsabanna allah gaafilan amma yacmalu zalimun bul njortu mukk yow yonent bi yàlla da tële mbaa mu sàggan mbaa mu fàtte ñi di togn azzaalimuuna zalimun foko deg ci alquran mo ay tooñkat mu ne kay dama xane ab togn kat bu xasse ba tamuk togn la koy gene ci togn lu jafe lay togn kat du gawa a moom kay da nga koy wutal ab bis rek boo xam ne doo ko wuteeg moom bu ñëwee nga duma ko ci duma yoo xam ne da boole la njëkkoon ak li mujj lépp ndax tooñkat boo xasee ba tàmm tooñ góomu robaale lay doon ci moom kum falaxe ba jàll bañ yaakaar ne ëllëg dara ci génn mu falaxe waat keneen noonu la koy toppee ba daanu ci biir ba xam bàmmeel innama yuwaxiruhum li yawmin tashxas fihi al absaaru wala al absaaru loolu nag euh, lu mat a daw la boo demee ci barab yi ñu attee wala barab yi nga xam ne ci la ñuy nit ñi diggante njaareem Touba Kees dakaar danga fa gis ay nit ñoo xam ne dañ leen di simi bañ desee ak ab tubéy ju ndaw ñu ne ci biiri barab ku am xet ñii nga gis leen ñu simmi bañ desee kilot bu ndaw ñu sëggloo leen ñii nga gis ñu simmi bañ des tubéy ju ndaw ñu taxaw loo leen ñii ñu yugle yugloo leen ñii ñu jël seen tànk te ko ci euh, euh, suuf ak seen loxo seen ndigg daal di kaw diir bu yàgg ñii ñu aj leen ci kaw takk seen loxo yi takkaale suuf seen tànk yi nga xam ne dañuy nekk ci diggante asamaan suuf am fu leen na ci ñooñee ñoo xam ne dëgg la dañoo def njaaxum ñooñee def njaaxum njaaxum ba ne fa dugal man naa am loolu mën na leen jaaj mën naa am du leen waaye am na ci ñoo xam ne kat doole ak maatay rek ka leen fa dugal ñii dugg nañ ci biir barab yooyu te fekk soxna soxna lañ doon bëgg am keneen ku leen ëpp doole ku koy bëgg kooko dugal leen ci biir kaso ñii dugg nañ ci barab yooyu benn waaye bu leen doon liggéeyloo ci wàllu jënd ak jaay xëy am lu fa gisul ne ñoom ñoo ko jël ñii dugg nañ ci barab yooyu xëy dugg ci ak kër am koy laaj ñu ne la toogal xaar ko nga toog xaar ko ñu toog ab diir am nañ doon xool gis ñu ko ñu ne yaa ko jël ñu dugal la ci barab yooyu ñii dugg nañ ci barab yooyu ndax lu ñu leen dénk te kenn ni ko dénk ñoom xamuñu ko waaye lam leen dénk xamuñu ko ñu téye ko di xaar kooku ñu ñëw jàpp leen yóbbu ñii dañ doon xëccoo lu mel ni li waajee du xëccoo mën naa doon sax ak nguur mën naa doon ab poste ñu fexe ba jaay ko doole duggoo ko ci barab yooyu ñii tëdd fa ñaar fukki at ñii tëdd fa fukki at ñii tëdd fa juróomi at ka leen tëj ci biir kaso yi toog jàpp njàmbaram di lekk di naan di yaataa yumbe di dem ci palaasam ak ñëw mbaa muy dem ci réew yi ak ñëw kooku yàllaa ngi wax ak moom ci waxam ji ne wala taxsabanna allaha gaafilan amma yaamalu zaalimun bu mu njort mukk ne yàlla li muy def da ko fàtte wala loolu amul bu mujj wala fii ci àddina lay yem am ñoo xam ne fexe nañ ba yàq ay diggante ay sëy yoo xam ne boo ko yàlla boo ko yàlla nammee ca jamono façon nag sëy boo xam ne ñaar ñi ko seq dem nañ ba am njaboot gu barkeel ab diir bu yàgg ñu nekk ci jàmm ab tooñkat jóge fële ngir bëgg a dund fexe ba yàq diggante ba ci ay tappale ak i nar ak i tuuma yàq seen diggante njaboot ga daal di tasaaroo ne am foo jëm loolu zulm la ak tooñ la te yàlla dana ko at lu say julli bari bari say addiya lu mu bari bari ñu lay tagg lu mu bari wallaahi danañ la duma duma yi métti ndax suñu borom ay waxam nit du nit njaay nii mooy am xel mu neex di ko toxal ñaareel ba yonent bi nit du wax ba noppi nit njaay ñëw am ànd ak xel mu neex wala di maslaa ci lu lu dëgg di ko toxal sëriñ Tuubaa it ay waxam noonu te li ma njëkk wax mooy sëriñ Tuubaa nee na ngi jawhar nafis te julli nee nañ moo gën a màgg ci xeetu jaamu yàlla koor bokk ci natt asaka aji màkk dugg ci biir jokk mbokk noonu te yooyu la njëkkee moom sëñ Tuubaa wax ko ne képp koo xam ne yaa ngi koy def wëlbatiku di tooñ na la wóor na mënuloo mucc jëlee nañ ci abdullah ibnu Omar doomi Seydina Omar mu jëlee ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon wax ju wér a ngi nii nee na az-zulmu zulumaatun yawmal qiyaama tooñ ay lëndëm rek lay jur yawmal qiyaama lëndëm nag baaxut génn rek nga jëm sa kër mu lëndëm këris amoo làmp la leeral la li fekk ngay àgg doone ci jàmm az-zulmu zulumaatun yawm al-qiyaama fekkee yow fi nga jëm mooy lëndëm ba doo am jàmm waxuma la bis ci ba nga xam ne xamoo fa kenn xamoo fa fenn nga jëm foo xam ne taxawaay boo xam ne mosoo wàtte sa tànk loolu ñaari nettalikat yi xadis yëpp nettal nañ jëlee nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne képp koo xam ne jël nga ci suuf sii àq joo xam ne moomuloo ko maanaam jël nga terrain suuf boobu moomut lu mu tuut tuut tuut terrain suuf boobu buñ ko doon natt jëm suuf dem ba fa suuf yam dañuy xool juróom-ñaari suuf yokku féete suuf yàlla lof la lof mooy day xar suuf ngay dugg di bërëx bërëx yi di bërëx bërëx yi di bërëx bërëx di dem foo jëm rek suuf lay day xotti ko ndax dalay seexloo la ngay dem di dem ba àgg ci juróom-ñaari suuf yu bokk am beneen nettali mu ne képp koo xam ne jël nga lu tolloog sa baaraamu déy ak sa baaraamu ŋàññikaay ñaari baaraam yi képp ku ko jël su ci suufu jàmbur loo moomut ñaari baaraam yi li muy gàtt gàtt te ak tooñaa ngi dong sabab danañ la mën a te takk sa loxo yi boole ko ak sa dox gi bis penc ngay xalambaay ci biir suuf ba àgg ci juróom-ñaari xeetu suuf yoo xam ne benn bokk yàgg sa morom loolu lépp mu ngi dugg ci biir li ma doon juñ mooy tooñ soo ëppee doole nit bul ko ko jaay mënoore ak man-man ak sañ-sañ jooy jaay ngir sa daraja wala sa judd wala wala wala wala wala wala boog euh, li nga doon bis day ñëw rek nga ñàkk ko am na ñoo xam ne ka tooñ la tax ñu di ko tooñ ñoom dañoo sukkandiku ci deret bi bokk wala ci askan wu bokk ba tax ñu ne dañuy tooñ kii ndax dañ koy jaay doole aw ci koom jàll du mujj fenn am na ñoo xam ne la leen tax a tooñ mooy du deret du daraja du dara waaye ab poste bu ñu leen dénk donc ko sabab am na ñoo xam ne njiital daayira bi leen fal képp a sabab ñuy tooñ loolu lépp nag àddina rekk la yem sunu borom du bàyyi mukk mu jàll yonent bi nee na sallallahu alayhi man kaana lahu maslima li ahadin min ardihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al qabla an laa yakuna dinaar wala dirhamu képp koo xam am nga koo tooñoon te yaa ngi dund te faatoo faatoo bu dee ci derem nga ko tegoon wala ci dereetam wala ci alalam jéemal gaaw balaa ngaa faatu nga xool luy tax bu ëllëgee ñu euh, ñu jégal la fii balaa ëllëg di jot nee na bu ëllëgee de dërëm doo ko fa yor ab dinaar doo ko fa yor te ci nekk looy dool rek ngay xool ëllëg waaye doo xool lu lay wàññi ndax nee képp koo xam ne tooñoon nga fi ay tooñaa ngi ëllëg bis penc boo fa borom day xool li nga jëfoon ci lu baax mu jox ko ñi nga tooñoon li ngay jëfoon ci lu baax moom la ñuy jël jox ko ñi nga tooñoon moo tax li ngay def ci lu baax bis boo jàppee ne bu la neexee pasar pasare caaxaane bu ëllëgee di nga ko soxla fokk ñëpp soxlaa nga ñàkk ko jox ko ñoo xam ne yow yaa leen tooñoon benn kàddu rek benn kàddu rek nit ki dana ñàkk ay góor ay góor jali jali jëf ju baax benn kàddu te am na ñoo xam ne wax ne diw fekk naa ko ci barab sàngam muy lu ñaaw du dara ci ñoom te du dëgg am na ñoo xam ne seen tooñaange mooy jël alali jàmbur fekk nit mu teg dara ci barab di am yaakaar ñoo xëy xañ ko ko mooy sàcc am na ci ñoom tuuma mooy seen tooñaange dañoo mën a tuuma lool dañ ko mën a indil nit am na ñoo wax ne dañoo tàmm wax di wax rek wax ju bari jooju moo leen di yóbbee ñu wax ba wax lu ñu war wax ba wax ko ci nit loolu it xeet tooñaa ngi la mu yu bari yoo xam ne ab jullit waru koo seq ak mbokkum jullitam ab yéefar képp boo ko defee balaa ngaa dem fenn yàlla dana àtte seen diggante waaye bi gën a métti nag mooy bi ma wax léegi gaa yooyu nekk ci barab yooyu ñu leen tëj waaye néew doole ak ñàkk mën a wax ak ñàkk am ku leen saytu ak ku leen dooleel dimbali leen moo tax ñu nekk foofu ay at te ci kaw tooñaange rek lañ leen fa leen fa bàyyee ka ko def xam na li may wax ñoom ñi ñu ko defit xam nañ ko yàlla mi leen bind xam ko te bu ëllëgee dana àtte seen diggante te li li ñu dal li ñuy mën a dal ci euh, fii ci àddina nga xam ne danañ dem ba mu yàgg sax mën a wax waaj ne ko jéggal ñu wala nga jëlaat alal ju bari jox ko mu jéggal la baal la daa amul yow mal xiyaam foofu moom lu waaye di jaay mbaay di mbaa di jaay niig niigal wala di jaay ak tayel ba àgg fa di ko jooy jooy mett bu la dara jaral ci àddina tooñ joo xam ne nii ëllëg da koy faatuwaale bu la ko dara jaral ci àddina bépp xeetu tooñaa ngi mu mën a doon nag mi ngi ci biir li may wax yonent bi neen al muslimu axul muslim laa yazlimuhu wala yuslimuhu ab jullit mbokkam mooy ab jullit warut di ko tooñ mukk warut di ko dugal ci mbir moo xam ne ni da koy yóbbee ak alkande yaa ngi laa biire kii te fekk na da nga ko defal nangam def nangam te fekkee lii nga ko yow xam nga ne bu ci dugee des yaa ngi koy alal loolu ab jullit war ko seq ak mbokkum jullit ndax ci xeeti tooñaa ngi la bokk. am na feneen mu ne nangeen ngeen wattandiku tooñ ndax tooñ ay lëndëm la yowmal xiyaam na ngeen moytandiku nay ndax nay moo ji moo alagoon ñi leen jiitu woon nay moo taxoon ña ñu jiitu woon di tuur seeni deret di dagan lu di dagaan loo xam ne daganu daa xaraam mooy fexe ba. jëfandikoo loo xam ne ni yàlla da ko araamal ci diggante nit ak nit yonent bi ne xam ngeen lan mooy muflis yàq dëgg lan moo dàq yàq ñu ne ko ñun liñ jàppee kuy yàq de mooy koo xam ne daa sàggane alalam ba amatul ab dërëm bu denc amatul ay bagages yu mu jaay mu ne déedéet innal muflisa yàqkat bi nekk ci sama xeet mooy koo xam ne bis indi ay julli yu bari yu daan julli loolu nag firiwut ne julli daa ñàkk sol day wane ne moo gën a ci loo xam ne bu bu la yàlla doon jéggalee dara mbaa mu lay rusee dara mu rusee lu julli gii bu la ko rusee wut xamal ne dootul bàyyi dara ndax sëñ Tuubaa nee na doon na dégg aw nit ne leen bu ëllëgee moom la ñuy njëkk a xool suñ ko xoolee mu jub luñ xoolati mu jub buñ ko xoolee jubut luñ xoolati du jub naan mu ne nag maa ngi leen di dénk julli juróom bi ju topp mooy mu indaale koor indaale natt asaka waaye nag daa waxoon lu ñaaw ci waa ji am na ñoo xam ne dañuy xëy xëy wax ci nit lu ñaaw ngir lan bëgg koo jëriñoo ndax am na ñoo xam ne soo yàqee seen der bañ jaaxle amatuñ fuñ jëm dañuy dal dikkaat ci yow nga àndaat ak ñoom ab biir tàggaat leen ñooñu xam ne yow bi ngay yàq seen der bëggoon ñu dellu siwaat fi yow dong ko sabab am na ñoo xam ne yaa ngi yàq seen der waaye xëy xëy guñ tàqalikoo ak yow dong sabab nga yàq seen der ndax fuñ demati dootuñ baax la nga yaakaar ne loolu sa làmmiñ wii yàlla dana ko baal yàlla suñu borom du la ko baal mukk ndax séqoo ko moom ab jaamam goo ko séqal moo tax loo ci wax rek na la leer wala nga xas ab jaamur bu jigéen baa nga xas ab jaamur bu góor am na koo xam ne mi ngi mi ngi xas soxna si fekk bañ kenn ku ko jël soxna moo mu jël ko képp la ci jub am na koo xam ne mi ngi xas soxna si ngir waajee bañ koo jël ne ko def na nangam day def nangam day def fekk ne yow du nga koo bëgg a jël loolu it ak xeetu toñaangeel tamit nga am ay pexe mbir loo ko bëgg bëgg bëgg bu jël jotee ak tooñ mbir loo bañ bañ bañ bu ko teqalikoo ak tooñ nanga nga ci bi nga meree ak bi nga bégee te xam ne yàlla ko xereñ la te lépp lu mën a doon da koy teg ca barab ba nga xam ne fa la dëkk bokk na ci ak tooñ lekk alali nit lu mu tuuti doon ak dërëm la te degoo ko ci dëgg moo tax li ñu lay liggéeyloo liggéey ko ba mat la nga ca war a moom nga jël ko rek te dem ndax ñu ngi ñu ngi lay fay ñu ngi ñaari million de ci liggéey bii ngay liggéey nga jël sa oto jëm Tuubaa fekk na ci yoon wi ngay defee soog da ngay faatu te yow xamoo ci dara nga wax soo soxna ne ko maa ngi ñëw yàlla xam ne ne doo agsi nga des ci yoon wi ñu ñu ñu jàddal la yóbbu la margo ba wala ñu yóbbu la hôpital xool noo faatoo xool la ñu lay bindal tas saw yaram ñu génnee ay kayit yóbbu la margo ba yeew la ba nga dëgër dugal la ci barab boo xam ne wutal nañ ko numéro bu ñu xëyee génnee la fa teg la ci oto war laa indi ci barab yi ñu sànge ñu taaj la sang la ci kanamu nit ñoo xam ne mën nga leen xam mën nga leen ëmpale bu ñoppee jëlee la fa yóbbu la ci jullikaay ba jëlee la ci jullikaay ba teg la ci oto yi yóbbu la ci bàqi fas fas laa suuli ana ñaari millions ya te man naa am dugaloon nga ci ak njuñ jaaj ndax jëloon nga ay bagage yi jàmbur yow moomut te fas yéene woo ko a fay bagaas keneen la keneen moo doon liggéey loo nga jël ko ñëw defal ko waa ji loolu yow nan nga ko mën a lijjantee ci sa biir bàmmeel kon li am solo bu am solo mooy saa su ne mbir mu ne sedd ci ëllëg te di ci xalaat yàlla suñu borom bu baax ndax alal ji moom noo ko mën a lekke di nga rëcc su fekkee lewut su lewee nag soo ko dugg dugalee sa biir bii balaa moo rees day day rottalaale sa bàkkaar su lewee moo tax di dimbali ñi ngi koy jox waaye di dimbali sa bopp lu ci am solo la alal jooju nag ki tooñaange jooju nag ki jiite réew mi bu ko neexee mucc ci ñim jiitaloo yeneen poste yi bu leen neexee mucc ci ñi jiite barabu liggéeyukaay bu leen neexee mucc ci ñi nga xam ne nii ay kilifa leen te leen fal bu leen neexee mucc ci ñi nga xam ne it dañoo tënku ci ak kilifteef bu leen neexee mucc ci ku ci nekk da yem fa nga war a yem bañ a wax loo war wax bañ a jëfandikoo alali jàmbur ci loo xam ne nii te woo ci dëgg am na ñoo xam ne ñu ngi jug dara doon seen yitte pour loolu rey doomu aadama rey daaw ak daawaati jeeg ak at yi nga xam ne moo jiitu rey nañ fi ay gone yu bari te ña leen ñoom xam nañu ñoom ñoo leen rey. seeni waajur di jooy daawaati waati jéeg am na jigéen bi ñu rey boori Tambacounda te la tax ñu rey ko mooy bëggoon koo jëfandikoo ci wàllu njaaloo mu bañ ak tooñaa ngi gënu ko rey yàlla dana àtte seen diggante ak yeneen jigéen yi ñu ko def yëpp ak jigéen ñi nga xam ne yi ñoo ko def góor ndax am na ci diggante ay gox yoo xam ne ay jigéen yuy sol ay tëni yor yor ay jumtukaay yuy mën a rey nit ñooy jàpp ay nit lañ bëgg ci ñoom buñ ko amul ñu faagaagal leen mi ngi am muy diggante góor ak jigéen loolu lépp ay xeetu tooñaange la nit koo xam ne daal liggéey ay at soxnaam toog di ko xaar doomam ju ndaw joo xam ne mus a gis baayam ci ay bëtam xamee ne kii mooy baayam toog di xaar baayam mu ñëw ba ci digg àll bi nga kar ko téye otom ci àll bi daggate aw yaramam sànni ci àll bi loolu lu métti la bi te am na ñu koy def te seen yaram du daw ndax tàmm guñ ko tàmm loolu lépp ay xeeti mbir la yoo xam ne yàlla moo fàttewuma ko ndax du ma fàtte te ku ci nekk nang ko defee ak la doon sa àq danaa la ko jox ba mat sëkk waaye sawara nag ngay woo nit mën la ñëwal dimbali ma dafa yombut ku lay waxal ay pexe wala di la joxal alal bi ñu dafay génneel kon boog ñu góorgóorlu sunu kem lay kattan mooy te tuddu ko tooñaange bul jël benn waaye ngir sa doole bopp di ko fat ci néeg boo xam ne nii tey kenn xamul kañ la fay jóge man dafa tëdd fukki at xam nga ne yow nga tëddloo nit ci barab mu tëdd ba génn ñu ñaata at la fi def ñu ne fukki at nga ne ko jéggal ma de maa la tooñoon te fekk na ba nga koy tëj yow xam nga ne yaa ko tooñ waaye daa am loo doon xëccoo moom te boo ko tëjul woon doo doo jot nga tëj ko jiiroo lépp dugal sa poos def ko uh, ay ay projet dugal ko fa ko dugal ba mu wóor la ñàkk nga ko nga génnewaat mu ñëw toog ci biir saal bi nga toog mu toog waaye ji siggi ne la yow de xam nga ne da nga tooñ nga ne ko bis boo bis boo yëkkatiwaate sa kàddu ma def la na ma la defoon mi ngi te doomu aadama bi koy def daa jàpp ne rek dee jotagut xam na ne dina faat waaye daa jàpp ne dee jotagut nit wax na ko ma noppi nag jël otoom comme ni ma ko waxee daa des ci yoon jigéen ju ko xam ci sa borom kër téel tànkam doom ju ko xam ci sa bàyyi téel tànkam waaye xarit bu xam ci sa mbokkum xarit téel tànkam rakk ju ko xam ci sa mag téel tànkam ndax ëllëg euh, ku bokk ak nit dara euh, gis ko muy xalambaay ci ay musiba ak coono da lay xool bët yërëmtal rek te boo ci mën a dur mën boo ci mën a dara mën a jëlaat kon nañu góorgóorlu moytu yenn xeeti tooñaange yu diis yi euh, ci jëflante yi te xam ne sunu borom du koy fàtt te suñ tubaab dane bu yëkkatee yaram ba kenn du ne ko mukk teel nee na faaw day dóor yàlla bu yëkkatee yaram ba nee na faaw day dóor kon nag yow gone gi jaaykatu caaf bi bul jël mukk caafam jaaykat daqaar bi bul jël benn doomu daqaar ci yi muy jaay yow mi yow miy jaay li ngay jaay bul jaay nit loo xam ne waru ko ko jaay yow miy jënd it bul jël ci moom lu a jënd yooyu yëpp ay xeeti mbir la yoo xam ne ay bul jaay loo war a jaay te ki koy jaay xamu ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yaatoo yaatu kon tooñaa ngay ci mboolem xeeti yi ku ko ku ko xam na ko moytandiku ku ci am benn boo defoon gaawal gaaw ndax dañoo xamul kañ la ñuy faatu maa ngi nii di wax dëgër fit dong tax ma yaakaar ne suba dinaa taxawaat fii di wax waaye yàlla xam na ne dara leeru ma waaye dama ko tàmm damaa tàmm taxaw fii xëy na di wax rek ma yaakaar ne suba war naa fee mën a taxawaat di wax waaye dara leeru ma noonu la suñ dund gi demee dañuy yaakaar rek lu la leeru nag wóor ci yow fexeel ba xool ñi ngay muccee ëllëg dajaa gën